voilà c'est l'événement majeur qui coow Sénégal Le 8 mars pour une première fois nous avons la chance de décrocher le Faramaren du ko suñu c'est pour le 8 mars. waaw avons na xam nga euh, bu rek ay ndawam avons inspiration Puisqu'on la ñu n'a pas eu la chance de voir ça tout le temps à Xombol nous nous ñu inspiré nous ñu bëgg ko fa commencer bañ ko nous loolu nous waral ñu créer Production. Non, j'ai des ambitions politiques, certes, mais ma Production n'a rien à voir avec la politique, sérieusement. parce que amul ben coloration politique bo xamanteni l'Al na ci nous ci yëkëti moy rendre euh, euh, euh, xar kanam culturel bi nga xamante ni moom lañ ko mas a xamee loolu moo tax ñu jaayante ba créer bu production. waaw loolu moom duñ ci jóg parce que ñun ku ñu xam-xam ñu dans le social à xombol li may wax waa xombol yëpp mën nañ ko vérifier on est de la ville on n'est pas trop mal connu xam nañ ñu ci wàllu social kon lu ñu yëkkati rek bu mënee am ay retombées suñu xel du jóg ci delloo ko ca dëkk ba waaw bu production li mu bëgg bu ñu ko ci déggee ba Sénégal gi yëpp déggu ko ba mu atteindre ay objectif am ci loolu la bëgg xom Sénégal di ko ci dégg mooy di injecter li nga xamante ni moom lay mooy nekk ay retombées financières yi muy am ci ay organisation di ko injecté waat muy jariñ waa dëkk ba non mais bour fallait aller fallait partir à Khombole et voir l'engouement hein car la préparation Xombol gépp taku takku kenn desul dafa nek un événement bo xamanteni ni bañ koy sentu batay ñi ngi ci kenn bàyyi loxo mak ndaw xalé ñepp ngi ci kawam di préparer Wally Seck à waaw c'est pas décrocher Wally Seck n'est pas une petite chose il faut vraiment euh, mettre le paquet pour décrocher Wally Seck mais yalla suturaal nañu ba dëkk bi ñu dëkk jaral nañu ko pour gëna woné xarkana mom jaral nañu ko bañu jaayante ba lolu soti waaw on a épargné personne parce que puisque c'est une chose bo xamanteni dañ ko ubbi diversifier ko xombal gi yëpp euh, xombal gi yëpp yëg ci seen bopp ñi ñu war a seeti ñëpp seeti nañ ko on est on est parti voir toutes les autorités de xombal ci ci ci obédience bu mu nekk nag ñëpp la ñu gis wax ak ñëpp ba ñëpp jàppe nañ ko seen bis franchement